saafonteeg dimbalante dox ci diggante responsable politique yi àndoon ak président Macky ci njëlbéen ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma jotaay bu am solo jur mbégte xéwal yu ministre conseiller auprès du chef de l'État jébbal leen laata loolee jànkatu xasida yi ñoo njëkk a jot seeni bernde ak seeni ndimbal صرصار خلق الدارين أوسارا إن الذين إلى سرسار الخسيد سيارتي فرخو دارين أوسارا نيجي سنت بباح سرين شي عبدو مي di ko ñaanal fanu gudd ak wér ndax askan wi wax dëgg yàlla gis nan niñ ciy taxawee ci yu xew yu ne mi ngi jël ay engagement yo xamne ci moyen bopam diko def di jàppale askan wi te Serigne Touba tax japp na ne politique yi tax ñuy wax politique bi muy def bokku na ci limuy def def ko ngir bopam da koy def ngir liggéeyal Serigne Touba te li bokku na ci xex yi ndax tay limbal yi ta ñak ndax jamon ju fekk nit ñi dañu bëgg tok toog seen kër dañu wax ne nit ñi tok seen kër ndax comme mbass mi ndaje mi la ñuy bañ ñi nga xam ne yàlla daa dogal ñu ay de voix daal liggéey ci mbooloo ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi toog sa kër te kenn ku ne mbooloo ngi aju sa ginnaaw. maanaam ñun ñi nga xam ne tey dañ daa dem ci ndaje yu mel ni nga xam ne ñun feeg ndaje amul sunu liggéey du dox te loolu moom yaakaar naa ne ku nekk xam na ne kuy jàng xasaayit moom lii moom wax dëgg yàlla laal na ñëpp mais ñoom la gën a laal. parce que nii nit ñi di déplacé wu di ñëw ci Sëñ Cheikh Abdou mi yaakaar ko. loolu nag ñeneen ni doomu aadama yi di déplacé wu di ñëw sëñ Xaadim Géey mi guddi ak bëccëg mu yëkkati lam am di leen ko jox kon bu sëñ bi defee lii def na lu rafet maanaam lii dañ koy tegandi en attendant wala ñu seet ñi nga xam ne ñoo gën a ñoo ko gën a yittewoo ñu séddale ko noonu waaye jot naa ne ndax mbooloo mi ëpp na lu mat 1000 personnes ëpp na ko kon jàpp naa ne li sëñ bi def bu bu bu bu ñëpp defan ni moom wala boog bu ñu bari woon xalaate woon ni moom loolu moom dana gën am solo parce que damay wax chaque jour ne jànkat yi ñu bari dañ leen di fàtte dañ leen war di bàyyi xel bu baax a baax ndax seen yëngu ak seen dal lépp Serigne Touba la te nii ñuy def daaray Alxuraan loolu lañ leen war di def ndax fu nu nekk fu ne mbindum sëñ bi rek lañ fay te bu lii amee nga xam ne seen yëngu doxatul kilifa yi taxaw war leen mën a jàppale comme nii sëñ bi def bari na kilifa yoo xam ne tey buñ ko defan jàpp naa ne lépp dana gën a jàpp ne waaye nii sëñ bi def ñun ñoo ko ci sant bu baax baax te di ko ci ñaanal xam naa ni ma la wax itam mooy dañ koy tàmbalee rek maanaam ñenn ci mbooloo mi ñi ko ñi nga xam ne mën na fa àgg ñu àgg ko foofa bu leneen ñëwé incha allahu rabbi ñu xol ñeneen ñi nga xamné amuñu won ñëpp ñu fex bi ñëpp ko jotti ci ndimbal yi gannaaw jotaay bobé benen ñeël way politique yi Cheikh abdullah khan Mbacké Gaïndé farma fessel pass passam ci taxawu leen ñi ëpp ci ñom andon ak président Macky Sall jamonoy dekkal ngor señ bi def na tay jéggo bo xamni ne ñëpp ko rafetlu parce que ñi mu dajé ñi mu dajal tay waxuma ni ñom ñom dong ñoo fi doon jappalé président Macky Sall ci département bi mais tay bo leen ci génné li ci des du bari té ni ñu leen ko waxé ni sëñ bi ne la défé ab liste bo xamné bi 15 communes yi nekk ci département Mbacké kenn ku ne kañ fa fekkoon jot nañ ko ñi nga xamné ne amuñ seen numéro téléphone aussi ñu ngi jëm tentative pour suba ci 11h midi ñu ñëw dajé sëñ bi fii mu yëkkati ay teraanga jox leen. li nak il faut ñu rafetlu ko parce que li ma wax légui valable na ci politicien bu mëna doon mu défar base politique am seet ñi muy andal mu jappalé leen école lool dafa valable ci politique. waaye nak diko def saw nit ba yag nga wo ñi nga xamné ño ñoo fi nekkaloon président Macky Sall. xamoo ma sàmba xamoo ma demba dëkk bu ne kan moo fa nekkaloon ñan ak ñan seetal leen ma leen bu ñëwee mu yëkkati teraanga jox ñu boole ceeb ak suukar ak enveloppe boo xam ne bii koo ko xool xam ne am na yéene vraiment loolu kenn du def dara lu may sant ko santit président de la république bu baax a baax wax ko ne ko jéego bi nga xam ne bii mën nañ ko dox pour mën a am bunt bi ñu bëgg ci Touba Cheikh Abdou Dèjà wane na yoon acte bi du Abdou Bali def dafa nekk acte ne acte bu jar a saluer la ñëpp ñoo koy saluer ñu koy sant baax di ko gërëm di wax président ne lii mu def te wóor na man ay moyens boppam la ko defee parce que ñii mu dajale ak ñeneen ñay nga xam ne ñoo nu fekk si biñu gañee ci yëf yi lan bokk parce que politique aussi doone ñun ñi fi nekkoon rek a mu def ak ñoom ñi nga xam ne jot nañ leen ñu ngi leen di seet ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci jeunesse nga xam dañoo def acte yu mel nii parce que loolu moo mën a loolu mën a a jëme fi ñu jëm

doon nañ jéem fa seen kem kattan waaye dañoo toqi bàyyandiku ab jàpp moom bu yàggee ngay la ngaa metti kenn tegewlu la maa ci sa suufu tànk nga am foo taxaw bu yàggee da ngay toqi ñu ñaan nag li dal ñooñu ñëpp yàlla bu la dal euh, bu nee li nga def nii lii moo gën a tuuti euh, législatif yi ñoo ngi fi woon ak lu ko jàll ñu daj ci lu baree baree bari loo xamante ne bëggoon nañ tey ñu naan honorable député Mor Gueye wala honorable député Cheikh Abdou Bali waaye loolu yàlla dogalu ko te la nga ca def itam yaakaar naa ne ñu baree bari umpale nañ ko ñu bari umpale nañ ko ba pare wëlbatiku yu baree bari dal la ci bi nga dikkee di ànd ak président de la république ba léegi jëf ñu jëfal liñ la jëfal gën cee néew li nga daj moo ëpp liñ la jëfal. loo bëgg a bëgg bëgg defar benn loxo mënul tàcc benn loxo moom yëkkatiku rek lay man yëkkatiku rek ngay man waaye mënoo tàcc li tax mënoo tàcc nag tegoo ko sa bopp ndax bi nga ñëwee da yaakaar ne da nga mën a tàcc. waaye ki la takkal ndomb ak tànk joxula beneen loxo booy tàccoo bu ma nee tàccu nag mooy nga am fi say nattangoo ñu bëgg a def li ngay def ñu ànd ak yow di def li ñuy def feeg loolu amut da ngay yëkkati sa loxo rek waaye doo tàcc bu ma nee doo tàcc nag li fi jaar ba ñu agsi fii lenn lu ci nekk firnde la ci la nga ca def bu fekkonte ne am na ñeneen ñu mel ne yow di ko ci def nëga di tàccu nañ waaye loolu rek moo ñu manqué moo ñu tee tàcc loolu nag ministre conseiller nga bul jóg di ko wax président de la république. di dellu di waxaat sëriñ bi rek nekko ñun ñi nga xam ne maam ñooy gor yi ànd ak président de la démb ak bërki démb am na lu ñu manqué woon waaye loola mel na ne ñi ngi am yaakaar ne dana dellusiwaat siwaat ñu manqué woon mooy euh, yaakaar manqué woon nañu euh, ab sagit manqué woon nañu waaye gis nañ ne ñaar yooyu yëpp ñu koy gisaat tey ci kanamam bi nga xam ne maam yàlla doon na maam mu taxaw fii ci dëkk bi président dinkar ko parti bi ñun ñëpp ñu fas yéene àndaat ak moom ci ginnaawam li nga xam ne maam mooy yéeneem ci dëkk bi ak yéeneem ci réew mi ñu fas yéene ànd ak moom jàppale ko ba mu ma matal ko ndax ñun ay gor lañ yaakaar rek la am akob sak ñaar nag saa buñ ko noppee gis ci mbir rek dañ cay jeexal tàkk waaye loo nga xam ne maam demoon bari ñu manqué gisaat nañ ko ci moom kon ñi lay wax ne la suñu yaakaar dellusiwaat na ah suñu confiance dellusiwaat na ab sagit dellusiwaat na danañ and ak yow ci ci ginaaw fep fo bëgg an an agalé ligue président de ligue président mag Sall bi nga agalé ko fa. sama yaram daw lol ci action bi ndax ñima fi fekkon ñi fekk ñu taxaw dañu àndoon ak président di ram, te président li moko manké ku ku dajale ay njabootam président am na xol am na mu ngi ñuy xalaat ak bëcëk mais ku mel ni comme li nga def tay mom la manké mooy koo xam ne dafa dajale njabootam fas yéene leen dimbale président nag am na yéene ci ñun de xol bu yaatu la la yor mais nag day président de la république de Sénégal yor réew mi ak adduna bi monde bi yëpp mu fay dem rawatina nag ñun ñi kon ñu mel ni Cheikh Abdou yéen a war a dimbale président muy action bu mel nii li ñuy ñaanal sëñ bi mooy lii nii même bu du woon ak ndombal tànk li ñu la jox dalaa war ndax kër sëñ Touba di sa maam di ko sëñ Modou Moustapha foog naa am na lu mu liggéey ci réew mi am na fii ci dëkk bi di Touba kon nag bu bokkee ko sëñ Modou Moustapha ah war nga mën a def leneen ci dëkk bi lu dul ndombal tànk kon nag ndombal tànk dafa yokk ci lii nga nekk kon kon li ñu koy ñaanal mooy gudd fan gu ànd ak wér te lii continuer te gis nga sëñ bi xam nga waxal la daa gën a neex nga waxal sa bopp ñun ñi ma fi gis ñëpp ay gor lañ li tax ay gor lañ bañ jàppee président ba léegi bawuñu dekkal ngor président Macky Sall bu gëstoo nitu démbam ñii amna lu bari dina décanté ndax amna ño ñoo ay gor lañ mënu ño wax kon nak lool bu amé ci gor ñi señ bi ñu ngi lay delloowaat suñu bop action bi nga def nga ànd ko suñu kilifa yu bax yi ñu yaakar leen te jàppale président bam mu légui nak lepp lo loo mi ngi ñew ci dëkk bi xana bu ma ci Cheikh Abdou Mbacké mi jox kon ñomit dama leen di sante di leen gërëm Cheikh Abdou dama lay xamal Mor gay mi fatali président nekkon nako ko ndom ak tank ndax mérito nako ndax mi ngi jëf ci askan wi tayo xam nga ci dara yowin Mbàkke des lay ñaanal ndax yaakaar naa lii nga taxaw nii muy rafet lii nga seeti nit yi démb ñi nga dajale leen di leen teral njëkke ci ñoom kon yow dañ lay sant la gërëm Mbàkke ndax ca kaw ca kanam di la xamal ne sa ndomba gii nga takk du sens mérite la da nga ko mérito ndax da nga koo liggéey ñi ngi lay ñaanal nag ci barkeb Seexul Xadim sa maam lépp loo ci yaakaar yàlla na ko am